parce que Yewwi Askan Wi ca la ma xam ay góor ñoo fa ne ñi nga xam ni ñoo tànnal seen bopp des ci opposition alors que mënoon nañ def leneen bu leen kenn dugal division ku leen ciy dugal rek xamal ni kooku mu ngi xeex contre combat bi ñu nekk mi ngi xeex pour indi la division ñett at a ngi nii ku nekk ci ñun ñoo ngi lay bëgg jaxase keneen. ñetti at a ngi nii amul lu ñu deful pour diviser ma man ak le président Ousmane Sonko mais ils n'ont pas réussi et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont le réussir parce que xam naa luy union des forces et des cœurs surtout quand il s'agit de faire face au régime et au président Macky Sall rester soudés plus que jamais